alhamdulillah alhamdulillahi xaqa xamdi ahmaduhu taala wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh wa mustafahu wa xabibuh madaxahu rabbuhu biqawlih wa innaka la ala xuluqin azim salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa asna xadimih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 wa sayiduna nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yubayinu fadla xusni alxuluq wa ahamiyatahu fa yaquul fi xadiisi sayidatina aishata radiallahu anha inna almumina la yudriku bi xusni xuluqihi darajata alsaaimi alqaaim wa fi xadiisi sayidina abi darda radiallahu anhu ma min cheyin athqalu fi lmisaani min xusni alxuluq wa fi xadiisi sayidina abdullahi bni amrin radiallahu anhuma alaa uxbirukum bi ahabikum ilay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 min altahbibi ila alxaaliqi walxalq wa taxqiqi alsaadati walraxa yaqulu mawlana alabdulxadimu qaddasa allahu sirrah wa gayrahum wa kun maa annaasi jamii bilxuluqi alxasani yuxbibka albadii wa xassini alxuluqa bittaraxubi wa bittawaddudi ilayhim tuxbabi wa layyini alqawla likulli nnaasi fa innahu min shiyami alakiyaasi fa axbaruu bi anna nisfa alcaqli tawaddudun linnaasi an di lfadli wa min saadati lfata xaytu qasad an laa yaruddahu fuaadu di rachad ñi ngi sant sunu borom tabaraka wa taala cant ga yelloog jëmmam ju màgg ju tedd ja di seere ne amul benn buur ba yooyoo jaamu bu dul moom di seere na sayidna muhammad salallahu alayhi wa sallam ab jaamama di ndawam di tànneefam di soppeem sunu borom taggal ko boppam ci alquran tagge ko jikko yu kawe yu rafet yu mu am ñu ngi ñaan sunu borom mu dolli xéwal mucc ci moom ak i saxaabaam ak njabootam ak ci liggéeykatam bu mag bi bokki jullit yi jikko woo jikko yu rafet yi jikko yu tedd yi bokk na ci li sunu borom tabaraka wa taala soññee woote ci ci ay barab yu baree baree bari ci alquranul karim wax na ci barab ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla digleen leen ajjana wax ne ñooña ñooy ñi nga xam ne dañuy dimbalante ci jamono ju yomb ak ci jamono ju jafe ñooy ñi nga xam ne it dañuy wan mer duñ feeñal seeni mer ñooy ñi nga xam ne it dañuy jéggale dañuy jëllale teg ci ne sunu boroom dafa bëgg kuy rafetal ak ñiy rafetal wax ci beneen barab ne lu rafet akub safaan duñ yem mukk te duñ masa yem kon saa yoo xamee ne nit def na la ab safaan yow xoolal la gën a rafet la gën a jekk nga jëflante ko ak moom teg ca ne bu doon ne noonoo ga gën a rëy dox na seen diggante it boo woyee di jëflante ak moom ci noonu bu yàggee rek dana wëlbatiku ci sa kanam nooy ba mel ne ku musta am wenn dig sa dig ak moom waaye teg ca nag ne loolu nag ku muñ moo ko man kuy muñ moo ko man ndax jikko ju màgg la jikko ju rëy la joo xam ne ku amul dayo bu rëy amoo dayo bu màgg ci say jikko mënoo ko ku mu amul jikko ju màgg ku amul itam cër bu rëy mënoo jikko woo jikko jooju kon wane na ne nit jëflanteeg yow ci lu rafetul nga jëflanteeg moom yow ci lu rafet loolu dul yomb waaye nag mooy li nga xam ne ku ko man war na koo jëm mu wax ci beneen barab ne bu la nit defee ab safaan sañ nga fayonteeg moom ca safaan boobee mu la def waaye tayam ca képp boobaa def nga loo sañ waaye ku mën a fexe nag ba bu la nit defee safaan nga jéggal ko te doo ca yam waaye nga jëflanteeg moom yow ci njëkk ak lu yiw kooka moom na xam ne ak yoolam sunu borom moo ko gàllool boppam ndax yàlla rek ko mën a fay teg ca ne ndax sunu borom bëggut kuy tooñ ndax ku ne xam na ne fayonte dugg ci ku ci dugg rek mënu mën ngaa bañ a mucc ci ak tooñ ndax la la nit ka def boo ko fayoo tayam ca kepp li mu wax li nga def sañ nga ko waaye boo ca doolee dara lum mu tuur tuur rek dugg nga ci tooñ moo tax sëriñ bi Cheikhul Khadim radiallahu anhu doon wax ne di wattandiku lu tooñ ak fayuku tooñ wax na ñaar yëpp benn amu ci solo na ndax kuy tooñ du mucc kuy fayub tooñit du ñoŋ sunu boroom dolli ci ci beneen aaya wax ne képp koo xam ne nit tooñ na la wala mu jëflanteeg yow ci nu rafetut nga góor-góorlu fexe ba muñ loola ndax yàlla rek tax fexe ba jéggal ko boole ci it loola mbir mu màgg la mbir mu réeréy la waaye nag ba tey du lu yomb kon wane na ci ñaari barab ci alxuraan ne muñuk tooñ dollu ci jéggale dollu ci jëflanteek nit ke far ci lu rafet lu rëy rëy la waaye nag lees jéem la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wane leeral nga neelul jikko ju rafet ak solo sum am ci xadis yu bare bare bare bari bokk na ca ci xadisu sayyidatuna Aïcha radiallahu anha dafa wax ne jullit bi day bu góor góorloo ba ay jikkoom rafet donte ne fërluwut lool ci jaamu yàlla ak taxaw guddi ak naafila bëccëg ak woor bëccëg it jikkoom ju rafet joojee dana ko yéege ca daraja joojee wax ci xadiisu sayidna abu darda radiallahu anhu wax ne amul lenn luy gën a diis ci jëfi nit ki ëllëg yamal xiyaam ci balance ya jikko ju rafet waxit ci xadiisu sayidna abdullahi ibnu amr radiallahu anhuma ne fekk mu toog ak lenn ci saxaaba yi ndax ma wax leen xibaar leen ñi ma gën a sopp ci yéen ñi nga xam ne man maa leen soppal sama bopp te gën leen a sopp ci seen biir ña cay gën a jegeeg man ëllëg yow man xiyam fa may ne baamtu ko ba muy ñetti yoon ña toogoon ak moom saxaaba yi na ko ah soxla nañ koo xam lool mu ne leen ñooña ñooy ñi gën a rafet ci yéen ay jikko wax ci xadisu sayidna abdullah ibni masud radiallahu anhu ba tey ci jataayam mag lenn ci saxaaba yi ndax ma xibaar leen koo xam ne ajjana koo xam ne sawara araam na ci moom sawara du ko laal fenn munta jot ci moom ëllëg mu ne mooy koo xam ne day ko woyefal boppam ku jàppandi ku nooy ku jege nit ñi ku fexe ba ñëpp ñame ko bokk yi jikko yu rafet yi nag bari nañ lool te yaatu waaye am na ay cosaan yoo xam ne mooy yi nga xam ne bu nit ki fexee ba góorgóorlu ci ya ca des yëpp dana ko fekk si te yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ci xadis bu ñu saydna ali radiallahu anhu nettali mu waxoon ne xanaa duma leen tegtal jikko yi gën a tedd ci jikko yi nga xam ne mooy yiñ soxla fii ci àdduna muy jariñ tey jariñ ëllëg alaxira ne mooy ngay góor góorgóorlu bay jéggal ku la tooñ di jox ku la xañ di jokk ku la dog muy ñetti jikko bokk yi jikko ju rafet nag bu amee dayo bi mu am ak ngëne lu rëy li mu am am na itam dolli ci ay jeexit yu rëy rëy yoo xam ne dana ko jariñ nit ki nga xam ne moo ko jikko woo di ko jariñ itam société bi nga xam ne ci lañ bokk nekk te mooy dana tax ki ko jikko woo sunu borom tabaraka wa taala sopp ko bëggal ko boppam ndax jariñ gu mu jariñ jamam ñi waaye ki ko jikko woo it ay moroomi jaamam yi mu bokkal nekk dañ koy sopp dañ koy bëgg dañ koy ngéejoo waxtu wu nekk day taxit dund gii ñu nekk képp ku jikkoo jikko ju rafet suñ borom dana la may texe ci sag dund da nga am xol bu dal da nga am xel mu feex da nga yëg itam neexitu dund ci sa xol àllaaxira it da nga mucc te sag dund ko adduna itam dana jàppandi sëriñ bi radiallahu anhu wax nañu ca naxju qadaayil xaaj gannaaw boo xamee ne lim na ni nit ki war a góorgóorloo ci ay jëflante diggam ak i waajuram ak ay mbokkam yi ko jege ci dara da caa toftal dolli ca ne waaye yemul ci ñoom rek waaye nit ñëpp rek ñëpp na nga jikko woo ak ñoom nekkee ak ñoom ci jikko ju rafet boo ko defee sunu borom tabaraka wa taala mi leen boole bind dana la sopp teg ca ne na ngay rafetal say jikko jaare ko ci yaatal nit ñi ci sa bopp xajal leen ci sa bopp sopp leen te yàlla tax boobaa ñoom danañ la ko delloo nangay góor góorgóorlu it ci di nooyal say wax ak képp koy waxal ku mën a doon bul ñagasal say wax mukk ndax wax ju nooy ju rafet tey dëgg bokk na ci melokaanu nit ku am xel buñ fàtte ne sayidna Muusa ak sayidna Haarun alayhim asalaam ba leen suñ borom di yebal ca firawn noonam bu màgg boobee ak dayo ba mu amoon ak cër ba sunu boroom dafa leen a wax ñoom ñaari yonente yi ak cër bi ñu am ci yàlla lépp doon ndaw yi sunu borom daf leen a wax ne yéen boo leen demee na ngeen wax ak moom ci wax ju nooy sëriñ bi dolli ca ne boroom xam-xam yi wax nañ ne it xel bu ñu ko doon xaaj dañuy jàpp ne genn wàll gi mooy nit ki fexe ba sopp nit ñi di jëflante ak ñoom it jëflante boobu tax ñu sopp ko dolli ca ne it bokk na ci lii. wane texe gu nit taxe fii ci àdduna te bu ëllëgee it taxe jàppandi ko mu yor jikko joo xam ne dana tax ba képp koo xam ne dara ci mbaax wala bëgg lu baax a ci yow rek sab xol du ko rejeté mukk kon mbokk yi jikko ju rafet a ngoog di lu mat a bàyyi xel waaye nag ku ne xam na ne jamono jii ñu dund jamono la joo xam ne jafe-jafe bi gën a rëy bu fi fiy jam fiy jànkonteel di ko dund ci jamono jii mooy jafe-jafe jikko ndax bu doon feebar bu ñuy buy dal nit dañ naan société yëpp dañoo maase tollu ci feebar feebar goo xam ne moom dafa të dafa mel ne saafara amatu ci jéggale bareetut jëllale bareetut dimbale sa moroomum jaam te yàlla tax bareetut jox koo tane bareetut jokk bokk bareetut laa biire nit te yàlla tax bareetut jëflante jëflante bu rafet ak sa moroomum jaam te yàlla tax rek bareetut yéwénal ay diggante itam bareetut mag muy yërëm ndaw te yàlla rek tax bareetut ndaw luy weg mag te yàlla rek taxit bareetut jamono joo xam ne nit kuy juum ba nangoo taxaw jégglu bareetut waaye ku ñuy tooñ bam nangoo jéggale itam wala muy dogal nit ngànt bareetut ñun ñëpp ñu maase yor jikko yi kenn ku nekk ci ñun sa bopp ñor la ñor goo xam ne yegg na ci yëgatoo kenn faaleetoo kenn ku dul sa bopp lépp looy def looy wax sa njariñul bopp rek nga cee xool moom nga ciy jiital doo séddaale sa moroomi jaam yi nga bokkal fi nga nekk mukk mu wax ne kon nag jamono jooju buñ ci tollee nga xam ne yegg na ci ñun sax ñu bari ci ñun donte na ay jullit lañ foo ñu laajee ñu ne ñu ngi góorgóorlu ci jaamu yàlla dañuy yegg ci jàpp ne am diine ak yàlla moom ak jaar ci yoonu yàlla bëgg mooy rek bu julli jotee nga julli bu naafila jotee nga def ko bu woor jotee nga def ko bu koori naafila jotee sax nga bari la ko bu tudd yàlla jotee itam kenn du la ko ëppale waaye ànd ak loolu say jikko moom sa yoo ci nu la neex rek mën nga koo jikkawoo loolu bokk yi ci njuumte yi gën a mag la bokk sunu borom ci alquranul karim dafa ba muy digle joxe asaka ci benn barab dafa wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko ñi war a joxe asaka nañuy jël asaka ci ñoom waaye nang ci boole di digal nit ñi aw yiw lu baax tey it képp ku jëflanteeg yow jëflante boo xam ne du noona na nga ko dëddu na nga ko woon gannaaw bu ko woo bu ko wuyu mukk ca lay woo na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet wax ci beneen barab itam ne maa ngi leen di digal nit ñi saa yoo leen di wax ak ñoom na ngeen di wax ak ñoom wax ju dëggu waaye na doon wax ju rafet joo xam ne du jam kenn wax ci beneen barab ne maa ngi leen di digal na ngeen di jaamu yàlla bu leen ko bokkaaleeg dara waaye na ngeen di rafetal seen digg ak seeni wayjur rafetal seen digganteeg seen mbokki laqarab yi ngeen jege ci deret na ngeen rafetal seen digganteeg jirim yi nga xam ne dañoo ñàkk seeni wayjur na ngeen rafetal seen digganteeg miskin yi nga xam ne dañoo lompañ na ngeen rafetal seen digganteeg dëkkandoo yi nga xam ne dañ leen a jege ci wàllu deret ak dëkkandoo yi nga xam ne sax xaj na jegewoo leen ci wàllu deret waaye seen dëkkandoo lañ nangeen di rafetal itam seen digganteeg ñi nga xam ne dañoo néew doole doxandéem yi na ngeen di rafetal seen diggante itam ñi nekk ci seen ron ngeen yilif leen saytu seen mbir ndax sunu borom kat bëggut kuy réeréelu bëggut kuy pookarewu bëggut kuy yëg boppam bëggut kuy yëkkati waggam wax ci beneen ba rabit ne nangeen di rafetal seeni jëflante te yàlla tax ndax sunu borom dafa bëgg koy rafetal kon mbokk yi jamono ji ñu toll ak jafe-jafe yooyu ñu am ci sunuy jikko jàppuñ ñu am na jenn saafara ju ci gën a gaaw kenn ku nekk ci ñun waxtu wu nekk muy natt boppam ak di xool boppam di càmbar boppam waxtu wu nekkit muy góor góorlu ba rëcc rëcc yu ko dal yu ne mu fexe bañ koo dolleeti waaye kenn ku nekkit ci ñun ña yàlla def ci say loxo muy ak njaboot nga góor góorlu ci yar leen ak tàggat leen ci jikko yu rafet loolu rek mooy li nga xam ne bu ko defee bu yàggee mën naa am ak soppi ko am ci suñu biir ndax suñu borom waxoon na ne saa yoo leen wutalee yàlla aw lay suñu borom daal di indi ndimbalam sunu boroom ñoo ngi lay ñaan ni nga ñu binde bindin wu rafet wii muy bindiin wi gën a rafet ci sa bind yi nga bind jàmm yi ñoo ngi lay ñaan nga rafetale noonu suñuy jikko di ñaan itam nga may ñu yiwu àdduna ak yiwu alaxira musal ñu ci sawara sàmm ni sunu ngëm may ñu fan yu gudd ak wér may ñu mujj gu rafet defal ñu jàppandal sunu biir yëpp alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina stafa wa baad ibadallah wa nahnu id naaichu fi zamanin akbaru azmatin nuwaajihuha fihi hiya alazmatu alaxlaaqiya allati saarat mucdila xaytu laa afwa wala safx wala badla wala ictaa wala silata wala nusx wala ixsaana wala safx wala ixsaana wala islaax wala raxmata wala tawqiir wala ictidaara wala icdaar istaxkamat fiina alananiyatu fastafxalat wa actaqada aktaru nnaasi xataan an altadayuna maxsurun fi salaatin wa sawmin wa dikr wallahu taala yaqul xudi alcafu waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin wa qulu linnaasi xusna wacbudu allaha wala tushrikuu bihi shay'a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 allahuma axsanta xalqana fa xassin xuluqana rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasanatan wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana bacda id hadaytana wa hab lana min ladunka raxma innaka anta alwahab waltuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana xusna alxitaami rabbana wa salliyan ala annabi wa sallimi waqdi bihi xaajata kulli muslimi yaxfiru llahu lana wa lakum